sens maintenant aujourd'hui nag ci jaay doole boobu dafa am situation boo xam ne bu ñu bëggee jàmm am ci réew mi dafa am situation boo am mi ngi daw ñëpp a ngi koy wax ñëpp di ko xuumtoo ci suuf mooy un leader boo xam ne dañ ko porter plainte ci mbirum tuumaal wala mbirum mbirum dang nga maa duural ñu mën ko wax diffamation mooy dang nga maa waxal loo xam ne amul mais loolu yàgg na fay am te andiwuf benn coow leader boobu di dem di wuy ji deful dara déjà avant muy wuy ji laa fay nga dem barricade këram ni ko doo génn mais loolu jaay doole la dem barricade kër koo xam ne moom deful dara daa war a wuy ji suba nga dem taxaw ne ko doo fi génne jabaram war a liggéey nga koy bund xataal pour du liggéey doo war a jàng nga ne ko du jàng ni loolu du xeetu dictature mu dem di xëy di dem ca procès ba nga créer des troubles yow mi ko yow mi ko war a yombalal pour mu dem parce que moom bañu la dem nga dem tey def loo xam ne ñépp ci teg seen bët mooy am na produit boo xam ni aspergé nañ ko ko wala pompe nañ ko en tout cas moom ca la jëlee euh, évanouir euh, bañ bañ bañ yóbbu ko di ko di ko di ko évacuer ba tey jii mu nekk sous assistance respiratoire mu nekk donc ñu koy dimbali pour mu noy mu nekk entre diggante dund ak dee ñu li ñuy wax mooy nguur gi ñoo am intérêt ci Ousmane Sonko jóg parce que dana indi jàmm nguur gi. ñoo am intérêt ci Ousmane Sonko jóg loolu moo tax comme àgg na ci ñu koy dimbali pour mu yi nañ ko delloo passeport am évacuer ko mu dem faju ji parce que loolu mooy indi jàmm ci réew mi nañu évacuer Ousmane Sonko bala cee musiba am nañu évacuer doomu jàmbur bala cee musiba am parce que santé mooy priorité ci lépp wér-gi-yaram mooy priorité ci lépp comme mbir mi àgg na foofu nañu ko bàyyi mu dem faju ji nañ ko évacuer comme ni ñu évacuer avocat parce que évacuer nañ maître Ciré Clédor Ly te la nga xam ne moom la jot moom Ciré Clédor Ly bañ évacuer ko mook Ousmane Sonko ñoo nekkoon ci oto bi kon bu ñu évacuer maître Ciré Clédor Ly mun ñoo bàyyi Ousmane Sonko fii Sénégal bu ci musiba amee mën na jur loo Sénégal kon ñun pour bëgg jàmm pour bëgg jàmm parce que jàmm la ñuy woote parce que réew mi suñ sañoon jàmm rek moo fi am parce que fi yeewoo président Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo fi indi kon ci jàmm jëgam la ñuy sàkku ñun ñëpp mooy Ousmane Sonko li nga xam ne moom lay dund nii su ci musiba amee mën naa jur lu kenn dul nettali ci réew kon nag ñu évacuer ko mu dem faju ji en France moom moo gën a yomb ci Sénégal bu ko defee au moins dinañ xam ne naam incident boobu am na mais on lui a permis au moins d'aller sa soigner mais suñu ko bàyyee fii Sénégal bàyyi Ciré Clédor Ly mu dem comme ni ni mu amee nii moom mu dem faj ji nan ngay jëlee am màggat moo xam ne am na juróom-ñaar fukki at yu teg ngay dem di ko gaze ci biir oto loolu rek moo lay won ni mais intention bi mais c'était c'était vraiment criminel donc aujourd'hui li ñuy demande état Sénégal mooy ñu jël matuwaay yi ñu war a jël pour évacuer le plus rapidement possible Ousmane Sonko pour mu dem faju ji réew moo xam na si moom moo koy décider boppam bu demee. fe euh, euh, ñu ñaan yàlla dimbali ko ba lii lii ko dal mu génn ci parce que qu'on le veuille ou non moom nangu woon na dem wuy ji tribunal tooñu leen def leen dara ñoom ñoo ko empêché mu dem ba li ko dal dal ko comme dal na ko nag te mi ngi toog ci euh, hôpital ñu koy ñu koy dimbali pour mu noyyi kon l'heure est grave mi ngi ci danger comme mi ngi ci danger nañ ko dimbali mu dem faju ji mooy ñu bàyyi ko mu dem seeti réew mu ko neex mu dem fajoo bu ko defee ñun mën a jur jàmm ci réew mi parce que ñun ñëpp jàmm lañ bëgg ci réew mi kon nag encore une fois fi may terminer mooy réew mi mi ngi ci guuta ñun sénégalais yëpp ñoo war a jël suñu responsabilité li fi am nii mënatu la continuer mun ñu fee nekk sunum réew mais chaque jour koo gis muy stressé ñëpp di tiit ku ci nekk di la woo naan la léegi bul génnati des fois sax nit ne la bul génnati sa kër guddi mais pourquoi ñu war a nangu loolu war a nekk suñu réew ñun léegi bu guddi jotee ñu ne noonu ragal leen parce que réew mi dañuy rayaate réew mi dañuy jamaate réew mi de amul sécurité non ku ci ne di la woone la bul génnati mais loolu buñ ko defee mooy ñun wax dëgg yàlla ñu ñàkk fayda ñun ñu am suñuy policier ak su suñuy gendarme yoo am suñu xaalis dañ leen di fay ñu moom réew mi président de la république bi leen di bi leen di recruter ñun suñu xaalis sa koy fay lépp budget bi suñu xaalis la ñun Sénégal ñu dénk ko kenn moomu ko mu mën ñoo ba wëlbati ñun lim xam suñu alal la ci la recruter policiers ak gendarme yi mu mën koo wëlbati ba napp ñu ba kenn dootul ba dootul kenn dootul nooy bu ñu ko defee nag ñàkk fayda moo tax ñun appelons tous les sénégalais à prendre leur responsabilité ñu xam ne jaay doole bii nekk ci réew mi mënta continuer mun ñu ko fee may Macky Sall mun ñu koo may ki ko fii wuutu ak ku fi mën a wuutu Macky Sall it bu bu ñu bëggee jaay ñu taxaw fen war a taxaw parce que réew mi kenn moom ko ñun ñii sénégalais ñoo ko moom kon encore une fois ñu ngi leen di wax ni Euh, position bi ñu taxaw duñ ci mës a dellu ginnaaw nous resterons debout nous ne sommes pas des êtres couchés yoo xam dañ leen di jaay doole xoqatal leen pour ñu dellu ginnaaw kenn mënuñoo jaay doole sunu bakkan bii bu ci desee sunu réew jaral nañu ko sunu bakkan bu ci desee sunu réew jaral nañu ko danañ taxaw taxawal suñu réew taxaw ci dëgg pour que réew mi démocratie am fi état de droit am fi liberté yi ñu encadré ko parce que loolu mooy sunu responsabilité ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam